bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna ma yanfacna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 mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa julli ci yonent bi rasulul mustapha sallallahu alayhi wa ñu bokk ñaan yàlla mi ñu may fanaanuk jàmm ñu ñaan ko mu may ñu kendaluk jàmm te moone ne bi léegi ñu di leen di fàttali rekk kàddu boroom xam-xam di jaamu yàlla ju baax di ibnu jawzi rahimahullah nee na iblis day dikk kenn ci yéen mu ne leen ñaata yoon nga doon ñaan yàlla te boobu bi léegi gisuloo benn ijaaba gisloo benn màndarga buy tegtal ne la ngay ñaan yàlla yàlla may na la ko nee na iblis képp ko mu jax-jaxal sa xol bem la interroger question bi ni mel nee na fa qul na nga tontu iblis ne ko ana ata abadu bi duaa ñaan bi may ñaan di de dama ci ñaan ngir jaamu yàlla damay ñaan yàlla ngir jaamoo ko yàlla te moo ne bi mooy addu'a huwa ibaada ñaan moy jaamu yàlla beneen riwaaya addu'a silaahul mu'min yonentu bi ñaan yàlla moy ngannaayu julit ñaan yàlla mooy ngannaayu jullit danga bëgg a yore ngannaay balay muccal ci lépp di nga ragal mu di la ñoddi lépp li ngay yootu saxal di ñaan yàlla mooy ngannaay ba nga xamante ne boo ko yoree yaa yore loo xamante ne moo jara yore waaye beneen riwaaya yonentu bi nee nañu sallallahu alayhi wa sallam addu'aa muxul ibaada ñaan yàlla de mooy yuuru mooy yuqu jaamu yàlla yuq waaw am na ñu naan yuq mooy boo tojee yax geres bay nekk ci biir yax loolu mooy yuq ñu ne yuq ñaan ñaan yàlla mooy yuq jaamu yàlla ba tax na buur yàlla ne ud'uuni ñaan leen ma astajib ko ma nangul leen kon ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na ñu yàlla may jàmm si suñu réew mi lañu jublu di digmal ci nii yan na ci yàlla jàpp mu def si jàmm ak salaam comme njiiti réew mi ni ko woote woon neena nañ leen si dugg ci jàmm ak salaam ñu nekk ci ci jàmm ak salaam bu ñu defee suñu warugal citoyenneté ba noppi réew bi continuer tegu ci jàmm ak salaam ba ñu xamee ba ñu àddina si nawe yal nañu ko yàlla may yal nañu ko yàlla defal ni amin ya rabbal alamin mbokk yi ci ndigalu kilifa imam rabitatul aimma les ligues des imams et des prédicateurs ci njiitalu suñu wuyjur di suñu sëriñ di imam Dame Ndiaye yal na ko yàlla sàmm aar ko ak mboolem ñamu bokkal kuréel wi ñu ngi fàttali mbokk yi ñu bañ a fàtte ñan ndox bi jële seen dëkkuwaay fale ci côté Bakel seen wii moo xam ci tund woowu ña yàlla dogal ndox bi di mbënn bi ñëw fekk leen seen dëkkuwaay bi ñu loru ci ndox wi ñu ngi leen di tàllal loxo ci mbokk jullit ñi nga xamante ne la yenentu bi ràbbaloo diggante jullit ak mbokkam rabitatul aimma lix di imam ele prédicateur ñu ngi tàllal loxo jullit ñi di sàkku ndimbal moo xam yére la moo xam lépp lu doomu aadama war a mën a jëfandikoo xeetu ñam lañuy sol la ñuy jëfandikoo ndax ñoom fum ne nii yàlla dogal na daal ñu ci guddi bu wërsëtagul te seeni nekkin dara soxalu la lu dul ka di jàppale ka leen di jàppale loolu ndi mën a jàppale ñu ngi koy xaar ci jullit ñi ndax yonent ba ràbbaloo diggante jullit ak mbokkam ci xadis bañ leen bëgg a andil nii bu ñu yem di ko jàng dong waaye gannaaw buñ ko jàngee ba noppi ñu mokkal ko ñu di ko wax ci daara yi di ko wax ci jàkka yeeg rajo yeeg léegi application bi nag moo fi des ndegem yàlla nattoo na suñu mbokk jullit ñi ndox bi jëlee leen seen dëkkuwaay léegi application xadis bi nag moo fi war a des moo ne xadis bi mooy xadisu abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa tadxuluuna aljannata xatta tu'minu wala tu'minu xatta taxaabu awala adullukum ala cheyin ida faaltumuuhu taxaababtum afsu salaama baynakum rawahu muslim mbokk yi na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xadis bi abi hurayrata solo radiallahu anhu abi hurayrata nee na naka yenentu bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee nañu laa tadxuluuna aljannata du ngeen dugg arjana mukk xataa tuminu ba te keroog da ngeen gëm yàlla walan tuminu du ngeen gom yàlla hatta tahaabu ba te keroog da ngeen soppante moo ne du ngeen ñëw ma tegtal leen loo xamante ne bu ngeen ko jëfee di ngeen soppante moo tax mu ne ñëw awala adullukum ala shay'in moo ne di ngeen ñëw ma tegtal leen loo xamante ne ida muuxu bu ngin ci saxee bu ngeen ko nekkee bu ngeen ko doxalee seen diggante taxaababtum dingeen soppante dingeen am cofeel kenn ku nekk mu am ni bu sell cofeel bu mu ëmbal moromam du ngeen ñëw ma teg tegtal leen loolu lu mu mel ni ñëpp babbee ko ñëw teg seen ndabu xol ak seen bu nopp yenent bi narse yekk lu tollu nii lum ñu dig ne kaay leen ma wax leen li ngeen di nekke ba ngeen soppante kenn ku nekk ëmbal cofeel ci sa morom yéen pencum julul bi léegi ñëw nañu teg nañu suñu ndabu xol teg nañu suñu ndabu nopp tegi yenentu bi nar see yekk lam ñu ne kaay leen ma joxañal leen ma tegtal leen ma yekkal leen la nga xamante ne bu ngeen ko salloo di ngeen soppante moo ne yenentu bi ñëw nañu loolu mooy lan sang bi nee nañu afshu salaama baynakum afshu salaama baynakum na ngeen jàmmalante na kenn ku nekk ëmbal jàmm moromam na ku nekk wax jàmm moromam na ku nekk xoolee buutu jàmm jëmali ko ci moroomam ba tax na rabitatul aima ba imam daam Ndiaye jiite kilifa bi ci ndigalu kilifa yi nee nañu ñu ngi tàllal loxo mbokk jullit ñi na waaye foo munti nekk ah ñu ngi sàkku ndimbal jëmale ko ci ñaloru ci ndox bi ci côté Saint-Louis ci côté maatam ak Bakel mooy zone tund woo xamante ne fala ndox bi jaar ba ña dëkkee tund woowu mbokk jullit ñi mooy mbokk sénégalais yi mooy mbokk doomu aadama yi moo xam diine boo waaye mën a bokk ndegem yaa ngi ci tund boobu te ndox bi lor la ci seen dëkkuwaay ah kilifa yi ñu ngi sàkk ndimbal ci askanu Sénégal képp ku wara mën a am la nga joxe ci béréb boobee ñu ngi la koy xaare te ñu ngi koy séentu ci ci sa ndimbal moo ne la waral loolu mooy la yonentu bi ne kenn ci yenn du gëm yàlla du dugg arjana lu dul daa gëm yàlla gëm yàlla bi du mat lu dul da ngeen soppante waaye soppante bi tamit la koy waral mooy ngeen jàmmoo kon nañ leen géem a la nga xamante ne mooy la leen di jàmmal ci loraange ba ñu nekk mooy moo xam yére la moo xam la ñuy jëfandikoo ci xeetu lañuy tëdd moo xam la ñuy sàngoo la moo xam lépp loo xamante ne nit ki war na kaa war a mën a jëfandikoo ñu ngi koy xaar ki bëgg joxe la nga bëgg la nga war a joxe boo demee Zido masjidu nuur boo laajtee dinañ la woon jàkk ji loo mën a def sa participation ci joxe la nga yéene pour ñu yóbbal la ko mbokk yu nekk ci tundu côté Bakel ngir ñu war a mën a suturloo ndimbal bu jógee ko ci jullit ñi foofu ci Zedo di di Nuur boo demee boo laajtee dinañ la woon jàkk ji lépp li nga war a joxe nga joxe ko fa wala avenir Malick si ci côté ginnaaw RTS képp ku dem ci jàkk Malick si lépp lu ngi waaye mën a joxe boo ko fa joxee dina àgg ci ñooñu loru ci ndox mi yal leen yàlla génne ci loraange boobu ñuy jaajëfal di ñaanal autorité yi ñoom it def nañ ci seen kéemtalaay kattan ak waaye yàlla ñu fa nekk di force de sécurité yi ñu ngi béy seen waar ak ña jiitu ndimbal yee fa jiitu ak ci loxo ba ñu jógee ko yal na leen yàlla fay yal na leen ko yàlla defal xasanaatu fil mizaan mu bokk ci xadiisu abdullahi bun mas'ud radiallahu anhu bi léegi nee na yonent bi salaa sallam daf ne assalaam ismun min asmaillah wadaahu llahu fi ard fafshuuhu baynakum xadiisun saxix axrajahu albani fi saxixul jaami abdullah ibn masud radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu assalaam jàmm ismun da di bi nga xamante ne dafa bokk ci min asmaaillahi ci turu yàlla yi wadaahu llahu fi ard yàlla daka wàccee ci kaw suuf si ngir ñu jëfandikoo ko kon nañ leen bokk jëfandikoo turu yàlla boobu di salaam jàmm ñu jàmmal ñu bokk ci ñuy jàmmal mbokk yu loru ci ndox bi côté Bakel ak côté Ndar su ko defee yonent bi ne fa afshuuhu na ngeen wesaare jàmm jooju baynakum ci seen diggante ndegem yonent bi salaa sallam moo ñu tegtal fii mu ne ñu na ngeen wesaare jàmm seen diggante na ngeen jàmmoo na ngeen doon ña nga xamante ne da ngeen di yéene wante jàmm moo ne ndegem yonent bi moo ñu wax lii kon ñun dara waruñu lu dul gannaaw bu ñu jàngee tex bi ba mokkal ko léegi lu fi des mooy géem jàmmalante waaw lu fi des mooy ñu géem a jàmmalante géem a taxawee wante nañuy mën a sëq jàmm ak képp koo xamante ne dafa am loraange ci li nga xamante ne mooy la nga xamante ne mooy la ko yàlla nottu ci xeetu loraange bi mu nekk moo ne bi léegi bokk na ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal keroog ba mu gàddaayee jóge ko Makka dem Madinatul Munawwara bokk na ci discours ba mu doon yëkkati bés boobu mu ne ci xadiisu Abdullahi bun salaam radiyallahu anhu nee na ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal yaa ayyuha nnaasu afshu salaama wa atcimu ttaama wa sallu rahima wa sallu billeyl wannaasu niyaam tadxuluuna aljannata bisalaam xadiisun saxiix axrajahu albaani fi saxiix aljaamic abdullahi bun salaam radiallahu anhu nee na naka yonent bi salaa léegi daf ne yaa ayyuhan naasu ay yéen nit ñi af salaama na ngeen jàmmalante na ngeen jàmmoo nangeen dimbalante ci jàmm na ngeen offrir jàmm jëmale ko ci seeni nawle na ngeen jàmmalante seeni diggante kon ñu nit nañu bokk ci ñuy yëkkati jàmm dem jëmmale ko suñu mbokk yooyu loru ci ndox ba leen jëlee seen dëkkuwaay ci côté Bakel ak côté Ndar nañ leen may jàmm ca lañu ñu yàlla yor dénk ci li ñu yore nañ leen may jàmm ci la ñu yàlla baaxee ci suñu moomeel yonentu beneen na ngeen jàmm wa atimu taama na ngeen ñam jëmale ko soxla kon tey jii mbokk yooyu loru ci côté ndar ak Bakel soxla nañu lépp loo xamante ne war naa war a mën a doon xeetu ñam waaw yonent bi ne wasilu rahim wasilu rahim jokk mbokk kon bi léegi mooy mbokk jullit beeg mbokk géño beeg mbokk meen bi nañ ko jokk bu ko kenn dagg sa mbokk bu nekkee ci loraange ndax kenn ku nekk si ñun boo nekkee ci melokaanu la suñu mbokk yooyu nekkee la ngay gën a bëgg mooy kalay lay gistu ka taxawee ka lay dimbale ba nga génn ci situation boobu kon ndegem ñoom la ko yàlla nattoo kon ñoomit bëgg nañu kuy taxawee seen wet ba yàlla dindi situation boobu kon nañ leen jokk mbokk ci ñooñee occasion la opportunité la ba yàlla ubbi buntu la boo xamante ne du ñun ñoo ko créé ñoom ñi koy dund du ñoom ñoo ko créé waaye léegi-léegi doxalinu jamono fa yàlla day doxal mbir yi num ko soobee mu xool ba xam dinañu am xolu yërmande wala dinañu am xolu joxe su ko defee lii buntu la yàlla di ese askanu Sénégal rawatina jullit yi Sénégal yi ba xam dinañu joxe ci la mu ne wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaatiya ahadakumul mawt na ngeen dépense na ngeen joxe astuut la ma leen wërsëgal lu jiitu dee di leen dikkal su ko defee du ngeen mun a njëriñu ci alal boobu ma leen dënk rëccute daal di taxaw ba jëmm jooju day wax ne fa yaquulu rabbi lawla axartani ila ajalin qarib mu naan yow yàlla lu tee nga may ma digg bu ndaw fa asaddaqa ma sarax fa asaddaqa ma saraxe wa akun min assaalihin ma bokk ci woy rafetal ñi ndegem jamono bi nga xamante ne dee bi ñëwagul feebar bi ñëwagul deewuloo feebaroo feebaroo dara jotul la yaa ngi wér péŋ yàlla ne moment boobu laa bëgg nga dépensoo ci ñama nattu coono bu toll ni ñii nekkee ci loraange ndox suñu mbokk ya nekk ci côté Bakel ak Matam jëmbe côté Ndar nañ leen bokk jox la nga xamante ne loolu lañu yàlla yàlla wërsëgal yére bëgg nañu ñam bëgg nañu matla bëgg nañu lépp loo xamante ne jumtuwaay la ba doomu aadama di soxla daal bu ñu dajalee suñu doolee mu doon mbooloo ñu daal di leen ko yóbbante yan na leen yàlla jëlee ci nekkin ba ñu nekkee yan na ko yàlla soppi mu doon lu gën si ñoom autorité yi ya fa jiitu ñoom it yal leen yalla fay yal na yàlla dëgëral seen taxawaay ndax loolu la yonent wax mu ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi ndegem autorité gouvernement bi ñoo fa jëkk jiitu taxawee fa taxawaayu état yal leen yàlla sàmm yal leen yàlla aar yéen bi yal na ko yàlla woyofal yal na leen yàlla kàttanal ñu war a mën a sumb ñu war a mën a yóbbu lépp lu ñu sumb mu doon yéen bu woyof si ñoom amin ya rabbal alamin mbokk yi xadis bi continué na yonent bi nee na la leen dégtal nii bu fekkente ne nekk ngeen ci keroog bes penc ah di dugg arjanna waalaata loolu daf ne wasallu bi leyli wannaasu niyaam na ngeen saxoo di julli guddi fekk nit yaa ngi nelaw tadxuluuna al jannata bi salaam di ngeen dugg këru xéwal ba nekk fa yàlla te mooy arjanna ci jàmm kon mbokk yi xam ngeen ne ah ba léegi yonent bi salaa sallam targhib mooy xemmem ba muy xemmem e, jaamu yàlla yi rawatina xëytu yonent yàlla muhammad salaa sallam ci xadiisu abdullahi ci hadisu abdullahi bun abbas radiallahu anhu nee na anna rasulullahi salaa sallam qaal yonent bi salaa sallam moo ñu ne igtanim xamsan qabla xamsin shabaabaka qabla harimika wa sixatuka qabla saqamika wa ginaaka qabla faqrika wa faraagaka qabla shuglika wa xayaataka qabla mawtika xadisun saxix axrajahu albani fi saxix aljaamia fi saxix targhib naam mbokk yi abdullahi ibn abbas radiallahu anhu moo ñu ne ci maanaa xadis bi ba léegi yonent baa ngi ni di xemmem loo jullit bi la nga war a mën a nekkee lu jiitu kontreelu leneen di ñëw jàmm ji nga nekke waxtu ba nga nekkee temps ba nga nekke beauté bi nga nekkee na ko exploité ci lu baax lu jiitu contre lu loolu di ñëw taxaw mu di la gaar ndax àddina lépp lu yàlla bind ñaar ñaar la waaw moo tax mën na ñëw ci xadiisu abdullahi ibn abbas radiallahu anhu yanna ko buur yàlla gërëm nee na yonent bi salaa sallam moo ñu ne igtanim xamsan qabla xamsin na nga géem a farlu góor-góorlu mooy ci juróom li jiitu juróom yim la bëgg a tegtal ni ñu lay gaar waaw góor-góorlul na nga sàmm wantel juróom lu jiitu juróom du ñëw juróom yu njëkk ya nga war a mën a mooy jàpp si mu bañ laa rëcc nga war ko exploiter lu jiitu yeneen juróom yi di ñëw maanaam juróom yu njëkk yi daldi temps exploitation lu jiitu yeneen ñaareelu juróom yi nga xamante ne gàllankoor dong la la lay àndeel laata juróom ñaareelu juróom balay dikkeel gàllankoor balaa loolu du ñëw première juróom yam la yenentu bi di dégtal ne na ko exploité lu jiitu yeneen juróom yi la war a àndil gàllankoor di ñëw su ko defee mu ne la lu ci jiitu mooy shababaka xabla haramik na nga góor-góorlu exploité sa ndaw lu jiitu màgget di la dikkee yow bu jigéen bi na exploité sa ndaw lu jiitu màgget di ñëw te doo mun a dara sàkku ci xam-xam taxawee ci nit ñi taxawee ci way néew ju doole ji lu jiitu màgget di ñëw doo mun a jaamu yàlla doo mun a sàkku xam-xam doo mun a dimbale kenn kon jamono boo ci tolloo nang ci nekk nga exploité ko ci lu lay jural yiw ëllëg bis penc mu doon la yàlla di gërëm yenoon ti bi jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi mu ne la wa sixatuka qabla saqamik sa wirgu yaram na nga ko exploité ci fii ma yuhibbuhu llahu wa yarda fépp fu buur yàlla sopp mu doon fa mu gërëm lu jiitu feebar di la dikkee waaw jamono bi nga nekkee sa santé jamono bi la wérgu yaram ganisee na nga exploiter sa wérgu yaram ci lépp fu yàlla sopp mu doon fu mu bëgg lu jiitu feebar di la dikkee ndax feebar bu la dikkee ñëw ganesi la doo mun a def dara lu méngoo activité feebar da lay congelé benn place doo mun a bouger su ko defee nga am rëccute ne bu ma sama wérgu yaram mayee dinaa def nii dinaa def naa moo ne wérgu yaram nekkoon nag yow wérgu yaram gane si na la danga ko exploité wul ci foo ko war a exploité ba tey feebar ñu dikkee la léegi rëccu nga ci la nga nekkee woon jamono bi nga ànd ak sa wérgu yaram moo ne ñetteel bi yonent bi nee na xinaaka qabla faqrik sa koom-koom sa compte banque sa coffre-fort am am bala yàlla dénk nga rënk ko ci banque bi yàlla dénk la alal nga rënk ko ci dénkukaay amu fa solo mu di fa nelaw yonent bi ne jëlal sa koom-koom boobu dimbali ci nit ñi lu jiitu ñàkk di la ganise eh, comme yàlla dalaa jox alal yàlla may na la moyen waaw yàlla may na la li nga war a suturloo na ko partagé jëmmale ko ci ñu loru ci ndox mi ci suñu réew côté Ndar ak côté Bakel ak maatam nga daal di dimbale ñooñu ci sa kémtalay kàttan ndax boo ci tolloo la ngay soxla mooy ku lay taxawee ba tax na l'ix des imams et les prédicateurs rabitatul aimma ñu ngi tàllal loxo mbokk sénégalais walla mbokk mbokku jullit ñi fu ñu mun munti nekk ndimbal boo xamante ne ah mbokk yu fa nekk daal loru nañu te loraange bi luñ si soxla mooy ndimbal bu jógee ko ci seen mbokku sénégalais moo xam jullit la moo xam beneen diine nga nekk ndax ñun suñu réew mi fii tabaarakallahu ma sha allah dañoo bokk dundu ak ñu ñu bokkalu diine ci jàmm ak salaam ak la nga xamante ne moom la ñu yeneen réew mi nawee kon képp ku am la ngay yóbbante comme niñ leen ko waxee rek boo demee Gédo Masjidu Nuur wala nga dem Malick si jàkk ba fa nekk su ko defee amul benn problème nga bàyyi fa la nga fa war a bàyyi su ko defee mbokk yañ ko war a yóbbu côté ñooñu laruur si ndox ba leen génnee seen dëkkuwaay dinañ si jot ndéem sopp na suñu borom yonent bi nee nañu wa xanaaka xinaaka qabla faqrik waaw na nga géem a góorlu dimbale nit ñi ci la yàlla dink ci koom-koom ci alal du jiitu ñàkk di la dégmal ñàkk bu la ganisee amaana dootoo mun a def la nga xamante ne mooy social dootu mun a def la nga xamante ne moy aide comme jamono bii la la yàlla wërsëgal nga woomle kon jëlal sa koom-koom boobu nga daal di ko dimbale ña nga balaa ñàkk di la dikkal kon borom alal yi opportunité baa ngi ni buntu sàkkukaayu xewal a ngi nii su ko defee ñu bokk dimbali suñu mbokk yooyu loru ci ndox bi ci côté bañ leen doon joxoñ côté ndar wala côté Bakel mu teg si ne na nga wottu faraagaka qabla shughlik jamono bi nga amee temps na nga géem a góor-góorlu na nga occuper sa bopp ci lépp lu lay yokk ci sa diine ak sa diggante digganteeg sa borom na nga occuper ci lépp loo xamante ne mën na laa yokk ci xeetu xam-xam lu jiitu ñàkk waxtu di la ganise ñàkk waxtu nag mooy xat-xat xat-xat bu la dig bu la ganese dootoo am jot pour def yenn yi dootoo am jot pour gëstu yenn yi kon jamono bi la yàlla mayee temps na nga jël waxtu woowu na nga jël temps bi nga exploité ko ci lépp lu yàlla sopp mu doon la mu gërëm te yonent bi jàngale ko lu jiitu xat-xat di la dikkal waaw mën ngaa nekk ci benn xat-xat boo xamante ne doo mun a julli doo mun a jaamu yàlla doo mun a sàkku xam-xam doo mun a déglu lenn la lay yokk ci sa xam-xam jamonoy xat-xat boobu balaa mu lay dikkal moment bi nga nekkee ci am jot jëlal waxtu am jot boobu exploité ko ci lépp lu lay njëriñ ci sa diine ak ci sa àddina yonent bi jeexalee nañu wa xayaataka qabla mawtik jëlal sa dund si boppam nga consacré ko ci jaamu yàlla topp yàlla ak dimbale doomu aadama ki nga tane du jiitu dee di la dikkal moo moo tax yàlla nattoo suñu mbokk yooyu nekk côté Saint-Louis wàcc côté Bakel côté boobu noonu yàlla dogal mbokk sénégalais ya fa dëkkee ndox bi jëlee leen seen dëkkuwaay kilifa yi joxe annonce bu toll ni moo ne nañ leen bokk géem a góor góorlu dimbale mbokk yooyu loru ci ndox mi ngir yàlla defal ñu ko yiw ci suñu téere yi jëf ndegem taxawee nañ leen rekk buur yàlla dinañu taxawee ñunut su suñu soxla ndegem loolu la yonent bi wax inna allaha fi awni al abdi maadaama al abdi fi awni axiihi nee na buur yàlla kat mu ngi taxawee doomu aadama bi ci soxla yamu bàyyi ngir taxawee soxlay mbokku jullit bi waaw yàlla mu ngi taxawee jullit bi ci soxla bu mu bàyyi ngir taxawee mbokk jullitam waaw képp ku bàyyi sa soxla képp ku bàyyi sa yitte képp ku jël la nga denc nga joxe ko ngir yàlla yàlla dina la ko wuutele la gën la nga joxe ba tax na ñu nit ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom yàlla ñu yàlla may la ñuy joxe yàlla ñu yàlla kàttanal lañuy joxe yàlla ñu yàlla wërsëgal la ñuy taxawee suñu mbokk jullit ñi su ko defee képp ku ci dugal sa loxo yal na la ko yàlla defal xasanaatu fil misaan yàlla bum naax saay yal na ko yàlla def yiw ci say téere jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee képp ko bëgg joxe la nga bëgg a joxe boo demee masjidu nuur ci zéro du ñàkk nga fekk fa ay gaay yi ramassé la war a dem ci mbokk yooyu loru ci seen dëkkuwaay waaye képp ku dem Malick si tamit ginnaaw RTS du ñàkk nga am mbokk yu fa nekk ñu war a yóbbante mbokk yu loru ci ndox bi ci seen dëkkuwaay su ko defee loolu mooy lañ leen andil tey ñu ñaan yàlla suñu boroom lu jub ci kàddu gi yal ñu ko yàlla defal xasanaat fil lu dëng ci kàddu gi nag ñu ngi koy jéggalu yal nañu ko yàlla boole jégal amin ya rabbal alamin allahuma aminna fi awtaanina waslih illahuma aimmatana wa wulata umurina allahuma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin allahuma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma alnasir wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu